auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim defoon nañ ko daaw fekke ko ren ñu fas yéene ci tàmbaliwaat comme niñ ko defe woon daaw di ci am mbégte contentement nag di baalu àq képp waaye di baalu àq tamit ñëpp yal na yàlla jéggal jéggal nañu ñëpp ci koor gi nga xam ne fas yéene nañ ko tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi nga xam ne yéen ñuy seetaan danañu topp programme bi dañ ko doon defoon at bu ne waaye duñu bay information yu benn yoon ndax xam ngeen ne bu ñëkku information la waaye nag dañu nekk ci waxtaanu koor ci yor yoru koor bi nga xam ne mën nañu wax ne baaxantal bi ñu ngi ci ñetteelu at bi bu dee ci télé bi la bu dee ci rajo bi lañ jàpp nañ ci fukki at ak ñaar yoo xam ne ñu ngi koy def boobu léegi nekkoon ci nag yoon bi balaa Sénégalais yi doon comprendre lii nga xam ne ci lañu nekk ba tey am na ñoo xam ne des nañoo comprendre waaye lañu ñu waroon jàll ci la xaaj ga yëpp romb nañ ko mbokk yi ki nekk ci réalisation bi di Pierre da Silva ànd ak équipe bu mag bi nga xam ne ñoo ko gunge ci réalisation boobu ñu ci am mbégte contentement bu mag fas yéene waxtaan ak yéen tey ci tàmbali kër ci yar kër ko defee waxtu bi may wari ne la dem toog ñu daal di leen nuyoog benn clip arab daal di sellal soog leen wax nag jaar-jaaru Abu Bilal ak ñi nga xam ne ñoom la fas yéene ànd ak ren ci aventure boobu nga xam ne moom moo nekk ci diggante xur ba nekk ca Fira ak xur ba nekk ca gànnaaru Israël ca Palestine ca yoon ba nga xam ne moo jëm ca xur ba ànd ak ngaanaan yu mag yi xam ne ñoom la Abu Bilal doon àndal ana batar batar ana batar buut ñoom ñëpp dinañ teewaat ànd ak ñaari gan yu bees. abu bundux ak abu bandax ci waxtaani koor ci yor yori koor alxatem <laughs>